Dakarnave euh, 99 la commencé ouais, exploitation wu chantier bi bi muy démarré dañu am lu lié woon direction bi ak liggéeykat yi ñu tënkoon ko ci li ñuy woowee benn accord d'établissement parce que Dakarnave dafa bokk ci convention mécanique général te activité bi ñuy def nekk réparation navale donc il fallait ñu ut ay conditions yoo xamante ni moo gën a baax la mécanique générale loolu ñu tënkoon ko ci li ñuy wax benn accord d'établissement bu ñu sele woon ut ci des conditions favorables yoo xam ni ci lañuy ñuy rémunérer liggéeykat yi et ces vingt quatre ans la points yi nekk ci accord bi yëpp direction bi respecter nañ ko amuñu ci benn problème te am na ci sax poñ yu bari au fur à mesure ñuy doon dem daan nañ ko réviser sur les réunions yi ñu daan am ak les différentes euh, collèges des délégués yi fi jaar liggéey nañ ci ñoom am na points yu et maintenant comme contrat de concession bi dafa jeex ñu nekk ci waxtaan pour nuñ ko renouveler comme ni ko délégué xamaguñu fu ñu jëm mais ñoom am na nee nañ pacte social boobu noonu dañoo bëgg aussi ñu xoolaat ko ci renouvellement bi ce que nous trouvons vraiment normal et ñu ngi ciy liggéey ak ñoom pour que ñu réviser accord bi xool point yi ñu ci bëgg posé nañ ñu ko jox nañ ñu benn projet ñu ngi ciy liggéey ak ñoom pour ñu renouveler ko pour que bu fekkante ni contrat bi état bi renouvelé ko ñu amaat yeneen base yoo xam ne ci la ñuy la yi di mën a jëriñoo incha allah. waaw tey li ñu mën a wax si bés bi mooy tey mooy bés bi ñu jagleel liggéeykat yëpp si àdduna bi donc muy bës boo xam ne tamit day doon benn occasion pour ñun ñu tegaat li nga xam ne mooy li ñu yitteel ñun waa Dakarnave muy li ñuy wax contrat de concession nga xam ne tey jii nii Dakarnave société privée la boo xam ne dafa signé benn contrat ak état du Sénégal léegi contrat boobu noonu dafa war a jeex fii benn at. waaw balaa muy jeex na ñun en tant que Travers Dakarnaa war nañu xam fan la ñuy taxaw état war nañu leeralal suñu taxawaay fan la war a jëm xamal lu ñu ah yéen kat daañu eh, taxaw si nii wala daañu leen def lii en tout cas ñu letuñu wala ñu firiñ parce que tamit booy liggéey fenn nan dafa gagné sa sa vie dafa gagné sa sa àdduna bëgg nga lépp looy lépp loo fay lépp looy am eh, eh, mu gën a ñoŋ mais pour mu gën a ñoŋ foog ngay continuer di liggéey. te fi toll nii bu fekkente ni contrat boobu noonu dafa am arrêt wala dafa am leneen te fekk na ñun ñu ngi fii di liggéey mën na nekk loo xam ne dañuy indil ay gàllankoor nu muy indi ay gàllankoor mooy que ni tey jii nii ñu ngi jëm foo xam ni 2024 la bari na ay ay ay ay yoo xam ni tey jii nii mën na mën na gàllankoor wàllum discussion yi. su ko gàllankooree ba egg foofu te fekk na la ñu war a signé si contrat bi nga xam ne day am benn délai boo xam ne dañu ko war a signé balaa ñuy egg foofu noonu te ko mën nañu ñun si ñu. kër ga di xaar liggéeykat yi fii xëy toll na si ñetti téeméer ñoo xam ni permanent lañ yu topp am na si aussi ay journaliers am na si ay prestataires am na si ay sous-traitants donc ñoo ñooñ boo leen xaymaa chaque jour day jege presque lu mat junniy travailleurs yoo xam ne dañuy liggéey fii si Dakar naaf te ñun ñëpp ay sénégalais am na suite parce que après bu ñu génnee génn boobu noonu suñu ministre woon nañu muy monsieur Sagna woon nañu pour discuter ñu pour dalal suñu xel wax nañu ni ah dalalee seen xel ni ngeen ñi fiy liggéey seen liggéey dina continuer waaye nag laabali fas moom lu mu daw daw du tee nga dóor ko ndax ñun li ñuy dal suñu xel mooy ñu toog ba tey jii nii ñu signé contrat boo xam dañuy xam ne ñun ñii kat fii la ñuy taxaw ñu xam ne ñun kat suñu liggéey menacé wul mais tant que signé ñu loolu noonu mën mën ñu tënku rek si ay ay ay ay waxi kese. donc si njàkkare ngeen nekk. si njàkkare la ñu nekk dalal nañ suñu xel nag waaye nag du tee tamit njàkkare baa ngi fi des ba léegi.